juróom benn nit ñoo faatu démb juróom benn barki démb ñeent te ñu ni ñu ngi waaj indi ay vaccin fii ci Sénégal kan la ñuy foowee ta'muruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum ñoom li ñuy digal nit ñi di leen ci forcé nañ ko def ñaata nit la ñu jàpp verbaliser leen parce que sol soluñu masque ñaata oto la ñu jàpp nangu seen ay pièces parce que dañu yàpp nombre nee nañu bu ñu réglementé mais nañu respecté nit ñi ñoom itam li ñu def nii ajiwul mbumbaay parce que li ñu yor ci ay milliards mën nañu def lu ëpp lii li ñu leen jox ci euh, euh, pouvoir ak sañ-sañ mën nañoo def lu ëpp lii travaux yi yàgg na nañ tenir compte ci Sénégal li ñu souffrir nawetu daaw ak léegi ci am ay jafe-jafe donc lii du ndam parce que les Sénégalais yi souffrir mu ëpp fuuf autopont yi ñu tabax nañ ci tenir compte. image baa ngi nii euh, ñu bu ñu ko. comparé bii ak bu Mansour Faye bi jàlloon. waa région am nañu man-man bi nañu génn très ñaari image yi ñu xool donc bugaan ma doon def ressemblement. Bougane moo doon def rassemblement ñu xool ñaari image ba xam kan moo def rassemblement mhm. du ñu bàyyi Sénégal yi ak seen liberté du ñu bàyyi Sénégal yi ñu dem seeti ñu am ay jafe-jafe inauguration autopont du loolu mais li Sénégal yi daj laata autopont bi noppi nga jéggalu leen bul li di doo ko gë doo ko glorifié woo da nga koy da nga leen di jéggalu ci désagrément bi nga leen indi pendant construction bi parce que construction bi farata la mhm. bi ci des mooy ñu nemmeekuwaat bu weesoo waa waa Yoof ak ñi aw ci VDN bi nga xam ne matuñu zéro virgule zéro virgule zéro virgule ci population bi ci ñuy utiliser tali yooyu mhm. ñu xool ñeneen ñuy souffrir ci wàllu pêche bi ci wàllu baykat yi mhm. ci wàllu sàmmkat yi ñu leen di nemmeeku ñu bàyyi leen ñu am ci moom accès mhm. te ñu bàyyi wat taxas génn wet gi réew mi